Famara Ibrahima Cissé maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Famara Ibrahima Cissé nga jiite association des clients et sociétaires des institutions financières ci 31 octobre bi ci la ñuy màggal euh, bés bu ñu jagleel wàllum épargne loo ñu si mën a wax. waaw comme ni nga ko waxee rek euh, tey bisum épargne la mais dañoo gis ni euh, épargne fulaluñu ko suñu dëkk bi moonte de. dëkk yi civilisé yëpp ménages yi dañuy épargne lu mel ni Sénégal ñu waroon na euh, jëfe wala sensibiliser pour que ménages yi daanaka kër yi liggéeykat yi entreprise yi ñëpp di épargner malheureusement dañ koo defu xam nga épargne dafa am solo ci réew parce que tey kuy épargner da épargne épargner pour ëllëg bis bu jafe-jafe ñëwee nga mën a jël épargne boobu faj ko moo ne say doom moo war a jàngi ji wala boog crise am na nga jël épargne boobu euh, faj ci say soxla te banque centrale dafa am lu mu wax ci épargne dafa wax ni euh, épargne dañ koo war a rémunérer daanaka dañ ko war a fay daanaka boo jëlee ñaar fukk dugal ko ci banque bi épargne ko at wa bu at bi jeexee euh, war nañ jël trois virgule cinq pour cent daan fu daanaka ñaar fukk ak ñett ak genn wàlla compal jox la ko loolu la banque centrale wax te dafa wax ni compte épargne kenn waru cee dagg dara waruñu cee dagg frais waruñu cee dagg taxe waruñu cee dagg ajout li waa ji dugal lu ne bu at bi jeexee dafa war a jot lu toll noonu mais jot ci encore trois pour cent en fonction de lu mu dugal loolu nag dañ koy bu ñu jëlee mesures yooyu dañ koo jël pour mën a n'est-ce pas euh, permettre banques yi ak institution de microfinance yi ñu am liquidité parce que bu ñu amee liquidité day tax ñu mën a financer projet jeunes yi projet femmes yi mais aussi day tax ñu mën a financer de manière générale économie réew mi ba pare maîtriser manne financière bi pour que nit ñi bañ jël seen xaalis di ko yàq gaspillage wala jël seen xaalis di ko dugal ci ay suuf roolal ci ay caaya ci ay pëna loolu nag day yàqu xaalis bi qualité xaalis bi sax koy yàq boxoñ beeg yooyu yëpp da koy yàq ganax yi dañuy ñëw jël ko yóbbu donc loolu yëpp day tax duñu maîtriser manne financière gu ci nekk moo tax ñu créer institution yi bu ko defee nit ñi mën fa dugal seen xaalis ñu leen di encourager mais xam nga dëkk boo xam ne amuñu culture épargne nga war a sensibiliser def éducation à l'épargne malheureusement acteur yi ko war a def di décourager épargne parce que tey boo épargner tam sa xaalis da ngay gis ni Euh, rémunération bi doo ko jot ñu ci dagg ay frais di ci dagg ay agio ñu ci dagg ay taxes dem ba am ay banques yoo xam ne sax dañuy woo ñi nga xam ne dañoo épargne woon na leen da ngeen di changer seen compte épargne par la force def ko sant euh, compte courant ñun loolu nag jooyoon nañ ko ci président de la république ci réunion présidentielle rencontre présidentielle bi sur la vie chère jooytu woon nañ ko fu wax président ne banque yi dañuy tere nit ñi ñu épargne malheureusement benn mesure la état bi jëlul ci loolu déglu nañu jox nañ leen rapport def nañ lépp mais après fa la mbir yi yem defuñu ci benn effort pour pousser les usagers pour ñu épargner banque centrale tamit moom moo gën a nelaw ñëpp parce que moom moo waroon veiller à ce que taux de rémunération yi banques yi respecté ko mais banque yi nekkuñ du ko respecté te amul benn sanction boo xam ne tegu na seen kaw loolu nag day décourager épargne moo tax nit ñi soit dañuy gaspiller wala boog ñu nekk ci jël xaalis bi di ko def wala du ko dugal foo xam ne amulul amul leen njëriñ amulul njëriñ réew mi moo tax nag il faut que euh, état beeg régulateurs yi ñu veiller à que banques yi respecter réglementation bu ko defee épargne bi mën a def parce que épargne bu ko banque bi di bu ko ménage yi di def day tax banque yi am suffisamment de liquidité te bu ñu amee suffisamment de liquidité dinañ ci mën a financer projet yi ma lay wax ni jeunes yeeg PAM yeeg entreprise yi te entreprise yi bu ñu jotee financement dañuy créer de la valeur ajoutée euh, créer euh, créer emploi yokk consommation bi bu ko defee euh, croissance bi yokk PIB bi yokk mais malheureusement ni muy doxee nii day tax usagers yi du ñu épargner te bu ñu épargner wul taux d'intérêt bi day gën a yokk parce que ressource bi day raar xaalis bi day raar te xaalis bi bu raaree ressource bi raar taux day joué tam ci taux d' intérêt yi ba pare euh, bu taux d' yi bi élevé euh, production bi day wàññeeku ci entreprise yi production bi bu wàññeekoo consommation bi day wàññeeku yooyu yëpp day tax euh, création d' emploi bi tam day wàññeeku parce que bu ñu produire lu bëri dañuy wàññi donc emploi yi day wàññeeku te bu boobaa économie bi day taxaw te oto moom bu taxawee dañuy dem ci récession wa donc loolu euh, déflation lay créer hmm. euh, c'est-à-dire que euh, production bu bëri day créer day créer ay crises yoo xam ne kenn xamul fu mu fu mu jëmale réew hmm. moo tax nag mesure épargne dafa nekk lu baax cim réew moo tax boo gisee réew yu développé yi di ko favoriser c'est parce que xam nañ njëriñ bi mais malheureusement ay réew yu mel ni ay Sénégal nañ koo soofantal ba pare respecté wuñu benn mesure Euh, Famara Ibrahima Cissé bu weesoo sax banques yi parce que lim nga fi jafe-jafe yu bari lu tax nit yi sawaratuñ ci banques yi bu weesoo banque yi yan mooy d'épargne la yi di faral di utiliser. waa xam nga ak la vie chère euh, revenu yi dafa dafa rare dafa faible pouvoir d'achat bi faible. Mhm. mais moyen d'épargne yi bëri na. mën nga épargne ci banque comme ni nga ko waxee institution de microfinance mën nga épargne ci compagnie d'assurance yi. Euh, mën nga épargner euh, à travers euh, ci bourse investissement boobu donc mën nga forme d'épargne yi bëri na même même caisse de retraite yi et épargne la même mutuelle yi et épargne la pour boo feebaree sa santé ak yooyu mutuelle de santé ak yooyu donc forme d'épargne yi bëri na mais pour ñu pour pour pour que population bi xam ko il faut mu am éducation à l'épargne éducation à l'épargne dafa bokk ci éducation financière bi nga xam ne devoiru état bi la ak prérogative am mu déroulé ko devoiru banque centrale la ak prérogative am mu déroulé ko avec les banques malheureusement loolu yëpp defuñu ko moo tax suñu réew su suñu économie day sooxe te a yàgg di sooxe tant que euh, jëluñu nit ñoo xam ne yenn mesures yoo xam ne dana tax euh, économie bi di décoller voilà euh, dossier Bocar Samba Dièye bi euh, Famara si Cissé fan ngeen ci toll parce que dañuy dégg souvent que gagné ngeen la bataille judiciaire mais aussi application boobu dafa dafa jafe loo ñu si mën a wax. waaw xam nga Bocar Samba Dièye problème am mën naa ne Sénégal rek la mën a am amul benn réew boo xam ne di nga nekk opérateur économique nekk puissance euh, nekk nekk champion national nga xam ne da ngaa da ngaa jóge ci daara jàngoo. góorgóorlu tey ba bokk ci champion yi yàgg di dugal ci trésor public impôt bu bare boo xam ne moom lañuy ñuy tabaxee ay école moom la ñuy tabaxee ay dispensaire yàgg dugal xaalis ci économie réew bi yàgg dimbali sénégalais yi ci bu ñu soxlaa céréale ba pare banque étrangère ñëw toroxal la état bi gëmmu ci ñëpp toog di setal problème Bocar Samba Dièye dafa leer parce que may fàttali ni juge day juge waaye du du financier droit la jàng bu soxlaa juger benn affaire financière day jël expert financier na ko càmbaral ma mbirum Bocar Samba Dièye ak CBAO ba tey may wax ak yow ni justice expert yi mu jël yépp ñu càmbar mbir mi xool këyit ci Bocar Samba Dièye yi nga xam ne Bocar Samba Dièye moom la jëlee ci banque bi parce que client boo nekkee ci banque këyit boo fa jëlee banque bee la ko jox yow mënoo créer këyit jël këyitu Bocar Samba Dièye yi mu jëlee ci banque bi jël këyitu banque bi comparé ko xool càmbar ak xam-xamam ni mu màccee ci mbirum finance mu xamal juge yi nii digganteeg CBAO ak Bocar Samba Dièye amul lam layam layame amul lam laame CBAO moo ameel xaalis Bocar Samba Dièye te na ko fay onze milliards loolu dafa leer question boobu dañ koo dépassé mais tappale bu bëggee dugg ci ñenn juge yi ba ñuy dem di génne yenn décisions yi ñu nee nañ leen duñ ko nangu parce que décision yëpp yu génn CBAO mooy tabe di def ay appel waaye boo ko Samba Dièye gagné na ba pare ñun nag tappale yi fa nekk ñun ñun yooyu duñ ko gere parce que tey da ngay dekk sénégalais amel banque xaalis décision génn banque bi jël huissier daw nangu sa kër nangu sa oto bu amee compte banque mu tibb la fa nekk fay boppam parce que décision bee ko joxe donc ñun bu ñu amee banque xaalis dañuy fay par la force waaw lu tax nag banque moom bu la amee xaalis kenn mënu koo fayloo boo jëlee huissier ñëw pour saisir et bien banque bi na la man awma dara koo xam ne amul dara ba pare chaque jour mu lebale ay million ay milliards du ko lebale ba pare bu taxawee boo ñëwee pour jël sa xaalis mun la awma dara waaw loolu nag dañ ko seetaan banque yi dañoo nekk au-dessus de la loi ñu yoonu Sénégal faalewuñu état du Sénégal faalewuñu banque centrale boo leen gañee tam ñu leen faalewuñu justice Sénégal da nga leen di gañee ñu ne la doo fayeeku loolu nag il faut mu dañ ci réew mi parce que citoyens yi dañu leen di exécuter pourquoi pas banques yi boo demee banque centrale ba nga xam ne ñoom nee nañ amuñu dara waaye am nañ fa compte bancaire boo xam ne ay milliards nga fa nga dem pour saisir compte ba banque centrale nekk du fi dal fii kenn du fi saisir banque waaw ñoom dañoo mën a nekk ay entreprise lañ entreprise mënta nekk au-dessus de la loi lii ci am Sénégal ab Sénégal rek la mën a moo tax nag ñun ñu ngi koy ñaawlu di demander état du Sénégal bu bañ a faible na jël ay responsabilités parce que góor gi 65 ans la toog tabax dëkkam xëyul rek am ay milliards tojul kees kenn mësu koo jàppale ci dara day fay impôt normal muy dimbale ay sénégalais donc kooku bu ñu demee ba nga xam ne banque sàcc na xaalisam il faut ñu wax ko parce que sàcc la expert yee ko wax man waxuma ko boo ko sàcc xaalis na état veillé à que xaalis ba ko sàcc ñu delloo ko waaye sàcc xaalisu góor gi liggéey ci fukki at ak juróom ñu ne la fayal nga ne bu ma fayee damay daanu loolu du du waxu nit du waxu du waxu gor te loolu duñ ko dangu malheureusement nag lu mel ni senegal rek la mën a am te ñun loolu duñ ko dangu Euh, dernière question Famara Ibrahima Cissé euh, gis nañu aussi nga doon euh, ñaxtu par rapport ak dund gu cher gi nga xam ne actuellement Sénégal yëpp ñu ngi koy yëg pratiquement denrée yëpp a yokk facture courant yi gis nga dañ ko multiplier facture ndox yi même chose nu mu ti côté opérateur yi aussi gis nañ tarif yi yokk na bu baax a baax dund bu métti boobu Sénégalais yi di dund loo si mën a wax mais dafa yéeme mu jaaxal ñëpp mel ni ñun amuñu état parce que tey commerce yi di def lu leen neex c'est le sauve qui dëkk bu amul loi amul gouvernement amul état loolu lay nirool parce que tey wax nga ko sànq mais lépp a cher nit ñi mëntuñ dund bëgguñu ci sax liggéey parce que seen pouvoir d'achat la ñu affaiblir seen kattan ak seen mën-mën ci mu jënd la ñu rey ba mu dee da ngay fayeeku du la njëriñ dara parce que boo ci génnee location nga génnee ci courant yow dootoo deseeti dara nit ñi dundatuñu te booy liggéey ba pare doo ci mën a dund mais loolu day tax yow la ngay bëgg doon liggéey sax da nga koy bëgg a bàyyi dootoo ci sawar boo gisee nit ñi du liggéey confiance dañu am ci liggéey boobu pour que bu lim leen mënta jox ñu mën cee dund mais nit ñi dañoo dundatul dañoo sonn te fi mu nekk nii mel na ni amuñu état état bu démissionné la ñu am loolu nag warum am cim réew état bi ne ressaisir jël ay responsabilité réguler marché bi parce que anarchie totale la moo fi am boo xoolee ndox mi ak euh, courant mi cher mais boo xoolee ay monopole la état bee ko yor di def lu ko neex alors que nit ñi dañ leen war a jàppale ñu mën a dund ñu mën a liggéey njëriñu mais ngay liggéey te doo ci mën a njëriñu loolu day décourager travail te nit ñi bu ñu liggéeyatul du ñu mën a du ñu mën a euh, yokk suñu croissance économique bi day taxaw loolu nag ñu ngi koy ñaawlu bu baax te dinañ continuer di ko ñaawlu foog fekk euh, prix yi di yokk parce que duñ nangu mukk ñuy liggéey ba pare duñ ci njëriñu am ñenn ñu toog fële di ko njëriñu. voilà Famara Ibrahima Cissé Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci nangoo tontu mi nga nangoo tontu suñuy laaj. maa ngi leen di gërëm leen sant. may fàttali ni Famara Ibrahima Cissé yow yaay président bu association des clients et sociétaires des institutions financières ñu gën ko xam ci ACSIF merci Famara Ibrahima Cissé. Je vous en prie, merci à vous.